loolu mooy góor ñi nga xam ne dañuy daal di defar euh, pédicure manucure maquillage euh, crayon bi donc euh, à tatouage ak li nga xam ne rek mooy anytime donc ma demoon fële ca j'adore onglerie bi nga xam ne moo ngi Nord Foire Ah, donc ñoom it ñu nekk ñu xarañ lool daal di wone seen métier li ñuy def esthéticien nag bu nekkee danga ko nekk ci góor donc nga daal di am ay préjugés yi nga xam ne dañ koy daal di tegal sa sa sa der bi di la naan nga efféminé di nga naan di liggéeyu góor di la traité ay yenn tur yi nga xam borom ñaari tur yi nga xam ne euh, rafetul te alors que liggéey la rek ni ngay teddee ci yeneen métiers yi ñoom tamit noonu la ñuy daal di teddee si métier boobu ñu nekk donc dañuy daal di dem teewlu rek li nga xam ne euh, mooy euh, élément bi ñëwaat sur les détails loolu moom instant yi toll nii dafa nekk tendance dëkk bi parce que ku jug rek dafay nekk dafay ne day pose ongle pose ongle te fekk na pose ongle yi euh, bëri na li ñuy def pose ongle bëri na mais wuute na aussi pour boo bëggee ongle bu baax moom boo bëggee ongul bu baax bu meilleur xanaa nga dem si esthéticien yi nag mais euh, fii esthéticien yi bëri nañ fi mais ñun moom nañ see dañ see spécial dañ see professionnel waaw waaw man nag dama doon liggéey aluminium aluminium laa doon liggéey boo pare nekk fi ak sama grand frère moo fi nekkee ak sama grand frère ñu liggéey su ma liggéeyee aluminium ba wàcc ñëw si moom moom moom euh, su ma wàccee rek soo soo sama ñëw toog fii mooy toog mooy tegloo ay pause tànk du ma tegloo ay pause loxo ba yàlla def affaire bi affaire bi ñëwee ba naturellement waaw fii nii dañuy def pause ongle pédicure euh, pause ongle permanent simple double ongle dañ koy def gel dañ koy def artisanal dañ koy def dañuy def euh, pédicure manucure dañuy def ay simpot greffage crayon tatouage ene ene dañuy def ay déplacement ene time aussi waa dañuy def dañ as euh, yi simpot yi coiffure et tout xale ak létt yëpp dañ koy def waaw ñun dañuy programme ene time moom dañuy toog bu ñu toogee dañ ñu woo déplacement ne ñu dañoo soxla ene dañoo soxla euh, Foden ene temps ñu après ñun ñu waxaa moom fixé moom fixé moom prix après ñooy dem nag ñooy dem euh, defaral ko ene ene bu rafet mais prix yi daal mi ngi commencé si trente mille jëm kaw ene temps waaw. dépend ci modèle. déplacement ak modèle ak modèle bi nga bëgg nag. waaw ak modèle modèle boo bëgg. waaw client yi moom fii nii maanaam ñu boo duggee rek dañ lay mettre à la place à la légère maanaam pour nga firi nekk nekk sa jàmm parce que nit ñi moom kenn moomu leen ñoom ñoom seen bopp buñ duggee buñ buñ fi buñ nekkee à l'aise moom dañuy sawar di ñëw mais bu buñ duggee rek ku ne fas sa kanam fii ñu niiw ñu niiw leen war a dalal di fas sa fas suñu kanam ak yooyu noonu buñ doon noonu dootuñu sawar di ñëw fii. léegi nag suñu la foo ñun bu ñu ñëwee dinañ la feccal man man man moom dinaa war man maa man maa def loolu parce que man nee nañ man damaa ñàkk fayda sax mais noonu la noonu laay noonu noonu laay dundee man boo ñëwee fii bu dee client bees nga naa la feccal reetaan loola ba nga reetaan naan waa kii moom lii na te fekk ni ñun noonu lañ mel waaw ñun ñëpp noonu lañ mel. waaw parce que client yi ñoom ñoom mooy ñoom ñooy proposer ambiance ambiance boobu xam nga ñoo xam te nag duñ. am na xam te duñ dem duñ def dara mais dañuy ñëw juste pour dindi seen stress pour ñëw toog pour def am kii am ñoo client yu bëri yoo xamante ne bu amee stress fii la ñuy ñëw toog dindi seen stress stressé yëpp mais ñooñu noonu dañuy sawar di indi seen yeneen xarit ñu ñëw di pause. ñëw nag ñu ngi koy sukk sukkand à liggéey bu professionnel rek. waaw des fois nag comme booy pause onglox yooyu noonu ma nga nekk say xarit ñi nga nekk à bas comme boo comme boo si nekkulee à bas âge nii boo demee ba nekk mag di di pose wax nga mën a laa dàkkante naan ay sëb liggéey bi dafa jigéenee da nga nooy da nga nii da ni du xam nga yow da nga nekk sa bëgg-bëgg di ko di ko sa caractère nit ñi moom ni nga bëgg a mel rek ni nga bëgg a mel noonu loolu lañ la loolu la xale jigéen bi si yooyu noonu ah bu dee ñun ñu ngi koy ah, matière ni ñu koy posé gisaguñ si risque boobu gisaguñ si loo xamante ne dañ lay posé ba pare nga am ay ay ay ay euh, retour ak yooyu parce que loolu boo liggéey ma boo si nekkee professionnel rek jël sa temps di ko liggéey doo si doo des fois nag di si am di si am yoo xamante ni euh, dañ lay dañ lay posal ba pare nga dem sa kër boo ko tàmmulee nga dem waaw nga dem sa kër di ko toxoon yooyu noonu loolu bu laakee kër bi doo dugg sa kër wala ñu lay posal ni mosoo pose ñun en général ñu bëri ñoo xamante ni dañuy ñëw fii duñ mosoo pose ñun ñoo lay proposer sil dañ lay proposer sil mais affaire la fekk buñ la silalee benn yoon yow sa woo yaa ñu nañu waaw yaa ñuy woo chaque jour pour ñu signaler mais am na ñoo xamante ne nii seen bët yi ñoo nanguwul signé ñoo xamante ne seen bët yi ñoo ñu bëri ñoo xamante ne nii ñu bëri ñu fi ñëwee pose ongle moo leen fi indi mais dina leen force sil force leen crayon mais ñun bu ñu leen def bu ñu leen defaree sil defal leen crayon après ñoom ñoo ñu woo téléphone wala ñoom ñooy doxal seen bopp ñëw ba fii. ñu nga produit boobu noonu am na daa am yaram yoo xamante ne dañ ko dañ ko dañ ko nangu am yaram yoo xamante ne nanguwuñ ko Ah. <laughs> ba ñoom ñoo ngi tribunal ñu kon guerre alors Aïcha. ñun de demuñu tribunal waaye <laughs> dara rëccuñu fa. ay Pape waaw suñu yónni woon nañ Pape ku xarañu yi nii. foofu xanaa affaire bi muy déroulé yow nooy woo. <laughs> non moo ngi doon def lu mu bëgg. dafa bëgg métier bi donc mi ngi noonu alors Aïcha tey nag euh, demoon naa fële ci euh, ki nga xam ne mooy Nord Foire di onglerie VIP onglerie donc gis ngeen ne vraiment xale bu ndaw la moom mooy diriger rek li nga xam ne mooy entreprise bi euh, donc avant nag muy doon rek li nga xam ne mooy esthéticien moom nag élève la woon donc magam mm. moo doonoon esthéticien doom liggéey fële nga xam ne mooy HLM formé ko ko mayil kii defaral kii ba euh, léegi mu nekk ku xarañ lool ci rek li nga xam ne mooy métier bi boo leen xoolee euh, rek euh, salon bi dafay fees surtout les événements dañuy daal di def benn kër rang bu gudd gudd ba doo am foo teg sa tànk même bu dul événement sax dafay daal di fees lii si suba si la woon par rapport guddi gi ni muy mel ci waaw guddi gi day gën a bëri ni parce que guddi gi nit ñi gën di di gën a disponible mais lii ci suba si la woon te gis ngeen rek li nga xamee ne noonu la meloon donc nag magam di ko jàngal li nga xam ne mooy pose ongles pose cils ak tatouage yëpp léegi nekkatu fi moo ngi Maroc mais moom moo continuer di diriger rek li nga xam ne mooy entreprise bi euh, donc laajte naa ko également euh, à chaque fois dañuy daal di laaj dañ lay daal di dañ leen di daal di taxé ay noms yi nga xam ne euh, c'est pas du mu ne ñooñu nga xam ne dañ leen di taxé ay noms ñooñu peut-être seen xel foofu la toll mais ñoom li leen war ak li nga xam ne moo tax ñu jug di def rek li nga xam ne mooy métier bi pour daan seen doole la am lu ñu dimbalee seen bopp ak seenu waajur donc nee na moom lii métier la bi nga xam ne daf ko bëgg daf ko choisir donc taxul mu ñàkk fayda taxul mu daal di def dara li nga xam ne yàlla daf ko daal di interdire donc moom nga xam ne muy bàyyi donc démb xam naa ñi nga xam ne jot nañu seetaan intégralité bi dafay def li nga xam ne mooy pose ongle parce que man moo may defal tout le temps samay ongle nga xam ne mooy tatouage cils ak li nga xam ne aussi mooy anytime des fois dañ leen daal di woo contacter leen ñoom ñu déplacé wu daal di def rek li nga xam ne mooy anytime laaj naa ko aussi concernant si li nga xam ne dañ koy poser benn benn Dora d'habitude moom mooy poser moom tamit euh, élément bu nekk ci salon bi la moom nag nee na au début c'était difficile parce que nga munoo nga bëgg tiim euh, bëtu dit di ko defar loolu risque la mais dafa daal di jàng ba maîtriser ba mokkal. Euh, mm. commencer di ko daal di defar nag nee naa ko est-ce que musula arrivé nga nga. tour kool si bëtu nit wala nga indil problème nit mu ne loolu mosu ko arrivé donc euh, te ay mhm. risque la yi nga xam ne dañu daal di nekk ay si métier bi en tout cas c'est un boo xamante ni mhm. dafa laaj vigilance laaj atten attention parce que ngay posal nit benn benn mhm. def ci colmante bi <laughs> colmante bi dafa saf <laughs> des fois ñu defaral la ba pare sa bët yi jooy ba xonk cuur donc voilà mais fi may taxaw tuuti rek mooy c'est un métier très noble et puis dañu leen encourager parce que ñoom ay góor lañu euh, gis naa góor yoo xam ne léegi dañuy def formation en maquillage di jàng létt mhm. boo génnee Sénégal dem ci yeneen dëkk yi États-Unis France mais góor ñi ci salon yi la ñuy nekk mhm. raxas ay bopp di bale di di di di di di fri di maquiller et tout donc c'est un métier très noble ils sont à encourager. Mm-hmm. ñu jaajëfal la bàyyi la nga tàggatoo rapidement ñu gëti jotaay di ko jaajëfal rek moom mi nga xam ne ñoom laa seeti woon at équipe bi yëpp parce que moom rek nekku fa xamal na ma ne équipe bi euh, famille la donc ñoom ñëpp li ñuy def daal dina bëri euh, voilà euh, émission bu naay sol la mm-hmm. di leen wax nag merci beaucoup xanaa ngeen seetaan rediffusion bi rek parce que émission bi démb la jàll di leen jox dig daje incha allah ba suba incha allah. incha allah oustaz mm-hmm. waaw waaw kon xam naa rek euh, dañuy tàggatoo tàggatoo bu dul tàggatoo ba alxames rek mais fii ba tabaski nag incha allah thème bi ci ci ci aji màkk rek la ñu fa. incha allah merci. doon teewlu. Pape merci. à demain allah bon. incha allah di euh, souhaiter rek bon pèlerinage. bon ah, pèlerinage ah oui. Euh, merci ñun de tey dangeen ma gëj a gis bon peut-être xam naa mercredi su ma ñëwaat ci plateau bi. lay dem Popenguine ah damay ñëw yow donc di souhaiter ñëpp bon pèlerinage. allez merci et bon pèlerinage. merci beaucoup Alassane Weuze au niveau de la régie jox leen dig daje ba demain incha allah mbokk yi teewlu leen lu flash d'information jotee léegi léegi ngeen daal di koy am.